Macky Sall moo ñu ko jox pour liggéey bi nga xam ne dañ ko war a def ci mbirum assainissement ci mbirum ndox jëmale ko ci màggal bi ñu xayma service yi fan lañ ci toll ak euh, yan dogal yeneen lañ ci war a jël pour liggéey bi yëpp rafet ñu gis ne ci mbirum euh, assainissement dem nañu euh, visiter euh, projet bi nga xam ne bu projet ci ci projet assainissement fukki dëkk yi nga xam ne moom la président Macky Sall lancé muy 70 milliards ci Sénégal yëpp waaye fii ci Touba paaj bi nga xam ne moom lañu ko jox moo doon fukki milliards ak ñaar ñu gis ne liggéey bi tey jii suñ ko doon xaaj téeméeri xaaj juróom-ñaar fukki xaaj yi def nañ ko ba toll ci waaye loolu mooy assainissement ndox mi nga xam ne mooy jóge ci kër yi ci ci ci gaanuwaay yi Euh, beneen bi mooy assainissement ndaxu taw bi fii am na ay jafe-jafe moo tax euh, euh, ministère de l'eau et de l'assainissement indi woon na fi ay camion hydrocureurs yoo xam ne yi ñooy jël ndox mi di ko yóbbu feneen. ci assainissement tamit li xam ne moom la jël habituellement mooy indi fi ay camions yoo xam ne ñooy manque douche yi di ko am fu koy yóbbu loolu aussi jël nañ ko ak ay toilettes mobiles yoo xam ne dañ koy teg ci mbirum ndox mi nag foofu. daaw jafe-jafe yi nga xam ne dañ ko amoon du mu amee dama waxoon gouverneur région euh, bu bu Diourbel ak directeur général lu OFOR ñu def benn daje boo xam ne bii dañuy xayma jafe-jafe yi ñu amoon ak fan la ñuy jëm ci màggalu euh, euh, ren ji loolu ñëw bu am solo la ndaxte ñi ko war a seq yëpp seqoon nañ ko muy Euh, maire yi Touba muy autorité administrative yi muy Maaw Rahmati mi yore mbirum ndox mi fii ci Touba ak ñi ko wax sëg yëpp ñu waxtaan d' accord ci benn programme boo xam ne bii moom la ñuy wax programme mu ndëgëndiku programme d' bu ñuy def programme d'urgence boobu nag gis nañ ne fi mu nekk nii ñu ngi koy doxal parce que dafa dafa ëmb ay forage yu bees yu ñu fi def euh, ñeenti forage yoo xam ne ñett yoo xam ne euh, yu bees def nañ ko ak benn boo xam ne bii dafa màggetoon yàqu ñu ñu defaraat ko ay ñaari ay château d'eau yu ñu fi defar château d'eau bu mag bii euh, nga xam ne moom dafa toog na lu mat fukki at doxul te li muy jël ci ndox dafa bari ñu def ko ci loolu suñ ko defee mooy aussi am foo ne ndox manqué na tuuti donc loolu biñ ko defee gis nañ ne euh, aussi am na ay fuites yu fi am lu mat presque téeméeri fuite yu manqué ñett euh, gis nañ ko Sen'Eau ak Maaw Rahmati ak Ofor ñoom ñëpp lëkkaloo ji pour réparer fuite yooyu mu nekk loo xam ne lii tamit euh, dana yokk ndox mi daal ci ci ci dëkk bi. parce que normalement li nga xam ne moom la ñu am ci limu ndox muy million ñaar téeméer. ak euh, juróom-benn fukk juróom-benn fukki junni bërigo loolu la ñu am su ma ko waxee ci bërigo euh, loolu normalement doy na pour li nga xam ne mooy ñëw parce que soo jëlee million euh, ñaar téeméer ak juróom-benn fukki junni bërigo yooyu nga jàpp ne nit ku nekk ko bu nekk xëy na juróomi nit mën nañ cee jëfandikoo par bés muy vingt cinq litres à peu près en par jour par personne loolu soo ko defee lu ëpp normalement juróomi million nit mën nañ cee am ndox mais problème bi ñu am fii ci Touba mooy réseau bi bi dafa xaw a màgget dafa am ay fuite wax naa leen bi ñu commencé weer ak léegi lu mat téeméeri fuite yu manqué ñett réparé nañ ko fii loolu moom mooy indi jafe-jafe bi ak yenn saa yi sax ci biir kër yi ni ñuy defee réseau bi ci biir kër yi mooy am am problème da ngay gis benn kër fii boo xam ne bii wàllu ndey joor gi am na ndox wàllu càmmoñ gi ñàkk am ndox xam nga loolu kon réseau bi nekk ci biir kër gi moo indi problème ci Touba loolu donc yooyu problème yooyu dañ ko am fi waaye taxaw nañ ci def nañu forage def nañu aussi ay tuyaux yu bees ay quartiers yoo xam ne amuñu woon ndox ñu indi fa ndox loolu defe nañ ne dana am euh, feex bu dami dana ko indi waaye nag muy fii ci senegal muy feneen ci àddina bi bépp dëkk boo xam ne bii ci ñaari fan euh, li ngay am ci limu doomu aadama danañ ko ful ñaar wala ful ko ñett wala ñeent wala ba juróom ah pour que féexaay bi nga xam ne nit ñi fay dund moom la ñuy am su bés bu limu doomu aadama yooyu yëpp ñëwee xam ngeen du nekk même feexaay bi donc loolu aussi il foog ñu xam ko. mais moo jàpp ne forage yëpp danañ dox. forage waaw yi am na ci am na ci yoo xam ne yi dèjà dugal nañu ndox mi. Hmm. am na ci boo xam ne bii nee nañu. tey jii ak suba mooy bi ñu visité Sànqala euh, fële ci. Euh, euh, Daaru Marnaan Feto réseau 9 kilomètres yi def nañ ko ba pare gis ngeen ndox maa ngi doon coulé. donc forage boobu ndox mi danañ ko dugal benn forage rek daal moo ñu ci óorul ndax moom su màggal gi commencé dana pare waaye yeneen ci des yëpp dana pare château d'eau bi nga xam ne junniy mètre cube la moom ingénieur bi wax na seen kanam ne def nañ ci ndox déjà muy dem ci réseau